yàlla nga ko ndogoo nii pale 2024 incha allah ci barke Cheikhul Khadim topp ñu kenn yow rek la ñu topp yow rek la ñu bëgg man ko neexi ree dong la bëgg bëgguñu kenn. occasion bi.